jàmm ñëpp am jàmm ah, di wax ni man Sidi Thiam laa tudd ah, ma nekk ma dëkk Derklé ah, dëkk antax Sambolo jëkkëram parce que Sambolo laa njëkk xam avant may xam Anta jëkkëram moo présenté Anta da nekk nit bu baax ñoom ay relation yu yu sori sori sori yoo xam ne xam nga jëkkëram moo tax man ma wax moom loolu Anta maa ko njëkk jaay jaaykatu scooter la bokk quoi comprends nga Anta maa ko njëkk jaay ay scooter boole ma mbay ma jaay ko ay scooter ñu toogaat ay diir comprendre nga Samba woowaat ma téléphone ma mbay dafa bëggaat ay scooter pour parking am bi naa ko jaay dix scooter ma ànd ak jëkkëram ñu def ma yóbbu ko mbaaw mu jënd ñu jënd scooter yi ñu indi ko jour bi nga xam ne ci la kii bi am euh, waaw jour bi non jour bi nga xam ne ci lay inauguré parti bi ci la am te fekk ma foofu mu ñëw ñu taxaw ñu waxtaan kafre mu tourné wëndeelu comprendre ne ma siidi est que xam nga mbay mu ne ko Anta yow yaa ma waroon ma Mbaye mu ne ma Sidi baax la ñaanalal ma ko comprends nga ma tukki dem États-Unis Anta fekk ma États-Unis ma téléphone cëpp mu ñëw mu woo ma téléphone ma allo Sidi mu ne ko mu ne ma maa sa dëkk bi de mu ne ko ah mu ne ko foo dal mu ne maa ngi ci état yi mu man maa ngi New York mu ne ma kañ ngay ñibbi mu ne ko Anta man de xam naa du ma fi yàgg parce que dama feebar affaire yooyu noonu mu ne ma naa la boole sama agent bi pour mu jënal la billet xoola geste yooyu noonu geste yi rafet yoo xam ne da ngay xam ne kii nitu nit ñi la quoi xam nga muy doon ku baax koo xam ne billaahi sama xol ak fan yi passé avant muy décédé sama buntu place la taxaw wàccee vitrine bi yuuxuma siidi ma ñëw ñu jàmm sante ma xëy deux jours trois jours ñu ne ma entretien ma koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana waaw yàlla oyofal suuf ci kawam yàlla teg ci loxo njaboot bi yàlla may xolu muñ yaayam ak papam ak Mbaye Diagne ak Sambolo mi nga xam ne mooy sama xarit mm. wala ma yàlla may leen xelu muñ ñu di dox jàmm waaw loolu daal laay wax di leen wax ne nag di sigil ndigaal di jaale ñëpp di jaale adduna bi yëpp di jaale ñëpp waaw loolu laa man pour wax leen gërëm yéen tamit ci leen sant waaw di ñaan yàlla na yàlla di def jàmm waaw léegi nag ñu wax ni adduna amul solo parce que ñuy fàttaliku dañuy jaamu yàlla parce que dee rek mooy dëgg dee kese mooy dëgg amul leneen lu dul dee dañuy rafetalaat jikko yi xam nga sàmmantewaat kóllëre yi ku nekk di demalante sa morom ko meuna dimbali dimbali ko ta yalla tax parce que lolou moy aduna wa di ñaanal ñepp jamm di wax ni senegal yalla na am jamm wa yalla biir wuur bu ndu yi yalla defaral ñepp jamm ñi nga xamni ne ngi bitim rew am ñu këyit di nekk États-Unis Espagne Italie ñepp yalla na yalla defal jamm teranga bi fay wut yalla na ko suñu borom may wa di leen jël jaajëfal bu baax baax baax kontaan naa ci yeen ja ngeen jëfal Thank you. Yeah. Oh,

kon jàll